salaamaaleykum mbokk internet yi dal leen ak jaam ci Sen Sports 221 dañu koy tàmbale ak match yi nga xamante ni moo jot xew ci ngoon balaa ñuy ñëw ci suñu gaynde yi ak résultat match yi nga xam ne kon jot na xew ci ngoon si am na ñoo xam ne toog nañu am ci ñoo xam ne qualifié nañu fi ne nii moom chaque jour mbir mi dafay leer am ci ñoo xam ne danañ takk seen i ñibbi bokk na ci match yi jot a xew ci ngoon ñi di waa Côte d'Ivoire bi nga xam ne mooy dalal compétition bi dañu ko toroxal torox tàng yu kenn mosul gis ci dëkkam ñeent bal ci dara la ko Guinée équatoriale dal di dóor moom Guinée équatoriale bi nga xam ne jàppoon nañu ne bokk na ci équipe bi gën a néew ci doole ci poule bi moo mujjee sax jiitu ci poule bi dinañ ci ñëw léegi waaye 4-0 dal di dóor ñi di waa Côte d'Ivoire gannaaw ginnaaw bi nga xamante ni voilà ñoom waa Côte d'Ivoire ñu ngi doon ut li nga xam ne mooy victoire ngir sax dégg maam yaakaar des ci li nga xam ne mooy bopp classement bi waaye nag gis nañu fa ñu mujjee fi mu ne nii xamuñu dara ci seen ëllëg ndax toog nañu wala dinañu am meilleur troisième xamaguñ ci lenn li nga xam ne daal moo leer mooy duma nañu leen te duma yu ni mel nag nee nañu kenn mësul ko gis ci histoire maanaam équipe boo xam ne da dalal compétition bu ni toll di Coupe d'Afrique des Nations nga joué ab match ñu dal di lay dóor du toll ci 4-0 nee nañu mësul am ci kaan loolu nag nekk loo xamante kon njëlbeen bi yoon la ci histoire ñu gis lu ne mel Côte d'Ivoire la ñu fekk ca dëkkam ci compétition bu mu dalal dal di koy dóor 4 4-0 bi mooy njëlbeen bi yoon lu ne mel di soo ko am beneen mbir bi mooy ñi di waa Côte d'Ivoire dañoo ñàkk ñaari match ci seen poule te loolu nag nee nañu gëj na am depuis 1984 te loolu yàgg na boobaak léegi mën na léegi maam fanweer wala ñeent fukki ci ay at ñii di waa ñoo ko defoon tey ñoo ko defaat tey ñooy ñaareeli équipe boo xamante ni wala bii mooy ñaareel bi yoon lu soo am voilà ñu gis ab équipe boo xamante ni da nga dalal compétition di Coupe d'Afrique des Nations bu noppi ñàkk ñaari match yoo xamante ni ci sa poule la voilà loolu moo dal ñi nga xamante ñoo di waa Côte d'Ivoire nee nañu depuis loolu nag booba jàpp naa ne ñi ne ci terrain bi di football kenn judduwu ci ci la loolu xewe woon ñi di waa Côte d'Ivoire ñoo ko defaat kon mel na ne ñoom seen ngoonu tey jile ay histoire yu lëndëm yu doy waar la leen dal di yóbbee ci match boobu la ñu gis ki nga xamante ni voilà moom la wax Emilio Nsue nga xamante ni moom dafa dégg amaloon ab triplé keroog voilà tey jii moom itam bitax la encore loolu nag may ko fi mu mu am lu toll ci 5 ci li nga xamante ni mooy compétition bii di kan voilà maanaam juróomi bal daal dina koy dugal ci phase de poule loolu nag ne nañu loolu géej na am de ba léegi gisuñu ci Coupe d'Afrique des Nations benn joueur bu marqué li nga ëpp lu mu dugal ay but ci compétition bi ñu nekk 5 but dal dina koy def ki nga xam ne daal moo ko mujjoon def voilà 7 bi la marqué woon ci atum 1970 la woon ñu koy wax Laurent Pokou voilà nee nañu ab Ivoirien la woon moo ko mosoon def boobaak léegi nag ñu ngi soog a gisaat lu nu mel beneen match bi xewoon bokk na ci ñi nga xamante ni ñoo di waa Guinée Bissau dañoo dal di daanu ci kanamu Nigéria Nigéria daf leen dóor benn bal ci dara bit bi sax ñoom ñoo benn ndam ñoom seen match yëpp dañ leen koo dal di dóor moo tax ñoom jamono bi kon toog nañu voilà ñoom Guinée équatoriale wala boog Guinée Bissau ñoom ñoo mujj ci li nga xamante mooy seen poule bu ñu xoolee groupe bi ni la dal tëddee kon ñi ne Guinée équatoriale ñoo dal jiitu ca kaw am lu toll ci 7 points Nigéria moo ci topp moom it am na toll ci 7 points waaye comme ñële ñoo ëpp lu ñu dugal ay but moo tax ñoom ñoo jiitu ca kaw Côte di point fi mu ne nii maanaam toogam wala dégg nga maam ak jàllam xamugu ci lenn faw mu xaar ñu joué ba noppi mu xool ndax dina bokk ci ñi ñuy tànn muy quatre meilleurs troisième yi ñëm waa Côte d'Ivoire bu dee Guinée-Bissau moom out bokkatul ci li nga xam ne mooy compétition bi yeneen ñaari match yi nga xam ne xewaat na ci ngoon gi ci ngoon gis nañu moom itam lu doy waar muy ñii waa Ghana bi nga xam ne dañoo tee qualification ba ci minute ñu dal di koy sànni a victoire ci coupe d'Afrique des nations tey ji mu dem ba tey victoire am bi ba noppee dal di koy sàggane voilà ñoom dañoo match ba fi mu ne nii ñoom ñaari poñ képp la ñu am ci ñetti match yi nga xam ne joué nañu kon ñoom waa Ghana fi mu ne mën nañu jàpp ne toog nañu éliminé nañu leen comme ni ma leen ko waxee ñoo gagné match ba ci quatre-vingt-dixième minute mën nañu wax ne trente secondes képp moo desoon ci li nga xamante ne mooy temps réglementaire bi voilà ci la mbir mi commencé yàqu nag ci fi mu nii mën nañu gis ne ñoom éliminé nañu leen Mozambique googu nga xamante ne nag moo match nul ak ñoom mel na ni ñoom bokkatuñu sax ci li nga xam ne mooy compétition bi xanaa kay dañu doon bañ a dem ak loxoy neen rek ñoom it mën nañu gis ne ñoom toog nañu ndax ñoo jël ndàdd ci li nga xamante ne mooy poule boobu danañ ci ñëw léegi beneen match bi doxoon diggante Égypte ak Cap Vert mën nañu gis ne foofu itam lu doy waar a fa xew ndax Égypte kan moom itam mën nañu ne téewoon na qualification ndax woon ba jàppoon na gagné na match bi waaye nag ñi di waa Cap Vert daal di leen dab mu nekk nañ ne seen mbir yàqu na waaye gane gi nga xam ne dafa am match loolu leen sauvé ñoom waa Égypte fi mu ne mën nañu gis ne ñoom ñetti poñ lañ dal di am bu ñeen xoolee groupe bi mu ngi noonu Cap Vert moom moo jiitu ca kaw ndax dafa am ñaari victoire ak benn match nul ba noppi di marqué ay but nag kon di waaye ñoom ak Mozambique kon jàpp nañ ne ñaari équipe yi ñoom toog nañu li des ci compétition bi kon dinañu ko wéyal ni ki suba suba nag match yi war a am bokk na ci Sénégal bi nga xam ne war na jouer digganteem ak Guinée tey jii nag amal nañu li nga xamante ne mooy tàggatu bu nga xamante ne amal nañu ko ñoom gaynde yi kenn rek moo ci dal di manqué mooy kii di Youssouf Sabaly ndax kat mooy benn joueur boo xamante ne danañu bokkul ci li nga xam ne mooy tàggatu yi bu dul xamante ne ni ki démb daf ko woon wala ñu amoon njàqara ndax a bokk ci match bi voilà comme ni ko coach bi waxee ci suba mën na la wax ne moo bokkul ci entraînement yi ku dul moom ñëw mooy tàggatu yooyu bu dee Guinée mom seen équipe bi ñepp wër ñepp entraîné nañu même Serhou Guirassy bi nga xamanteni ñaari match yi ñu mu def muy ñëk football mom bokul ci ta muy attaquant bi ci dàq dugal mom dina mëna bok ci jogante gogu ñu wara am kon seen digënté ak Sénégal mo tax ñoom wa Guinée kon pare nañu li nga xamanteni nak moy 11 probable wala biñu japp jàpp ne xëy ki di sélectionneur dina ko dal di teg bokku na ci li nga xamanteni moy ñetti coppite yi ñu ciy séentu benn ci défense bi ben ci digg bi ben ci attaque bi suñu jangat la nak ndax ci défense bi xam ngeen ne coppite mënu caa ñàkk ndax kii di Abdou Diallo du ci bokk dafa am li nga xamante ne mooy ñaari carton jaune kon du mën a bokk ci match bi la voilà kon dañuy gis ne kii di Abdoulaye Seck moo war a titulaire ànd Kalidou Koulibaly ci axe bi ci côté yi ñu am fa ki nga xamante ne mooy Ismail Jacob Seck ak ki nga xamante ne mooy Krépin Diatta digg bi tam ñu ngi fay séntu benn changement te njort nañu kii di Cheikhou Kouyaté daal di titulaire ndax kat ngir mu mën a dégg maam ci digg bi dina yombalal ñi nga xamante ne ñoo nekk ci côté muy Ismail Jacobs ak ki nga xamante ni mooy Krépin jaata ngir ñuy dal dem su ko defee liggéey bi nga xamante ni kii di Pape Gueye mu ngi ko doon def ci match bi weesu loolu koy dal di wàcc moom dina mën a libéré wu ko defee Cheikhou Kouyaté mooy doon nga xamante ni bu yëfi tagatembe mooy dugg ci diggante ki nga xam ne mooy Abdoulaye Seck ak Kalidou Koulibaly ñu nekk défense à 3 bu yëfee Zeng Maam soppee mu ñëw ci digg bi di jouer comme 6 loolu la ñuy gën su ko defee nag ci loolu mu ànd ci ak Pape Matar ak ki nga xamante mooy Pape Gueye ci boppam ndax ki nga xam ne mooy Lamine Camara bu fàtte ne keroog dafa amoon gaañu gaañu bi muy génn ci match bi ti tey jii yéen a ngi dégg ci conférence de presse bi Cissé di wax ne maanaam fokk ñu def li nga xamante mooy tàggatu bu mujj tey jii ñu mën yaakaar naa ne jarut ñu koy jël comme qualifié nañu ba noppi am nañu yeneen élément yoo xam ne pare nañu kon benn coppite laa ci gis mooy Lamine Camara dañ koy noppal ki nga xam ne mooy Cheikhou Kouyaté amal na mooy départ ci digg bi ki nga xamante ni mooy Pape Gueye ak Pape Matar Sarr di doon ñi nga xam ne ñooy yóbbu ballon yi ci kanam voilà ci attaque bi nag ñu fay séntu fit foofu it benn coppite muy ki nga xam ne mooy Nicolas Jackson ci place u Habib ndax kat Nicolas Jackson gis na ne ñaari match yi weesu yëpp dafay ñëw comme remplaçant te keroog gis ngeen troisième but bi nga xam ne am nañu ko moom moo ko liggéey donte ne yàggul ci terrain bi moom moo liggéey ballon bi moo ko récupéré voilà jël taawam ba ki nga xam ne mooy Gana Gueye ñëw na mu jox ko ko Gana Gueye moomu moo dal di passe Sadio Mané mu marqué ñu gis ne di nga maam attaquant la bu xarañ tay bu fekkente ne moom des na ca kaw dina mën a sonal lool li nga xamante ne mooy défense u bi beneen mbir bi nga xam ne tax na ba ñu gën a jàpp ne dina titulaire mooy Habib Diallo keroog dafa génnoon ak gaañu gaañu kon nag blessure boobu nga xamante ne amoon na ko yaakaar naa jarul moom it ñu koy risqué di ko forcer ci match boo xam ne qualifié nañu ba noppi te am nañu beneen élément boo xamante ne li mu li mën a indi moom Habib Diallo kooku mën na ko indi muy Nicolas Jackson te même bu dee porte yéeg ak moom sax xañ na kii di Nicolas Jackson a xarañ moo tax moom it séentu nañu moo kon suñu jàngat mooy ñetti coppite la ñuy séntu comme ni na ko waxee benn ci défense bi muy ki nga xam ne mooy Abdoulaye Seck ci palaasu Abdou Diallo mi ñëwut benn ci digg bi muy ki nga xam ne mooy Cheikhou Kouyaté ci palaasu euh, Lamine Camara bi nga xam ne voilà moom wax nañ leen raison yi war a tax ñu war ko mën a noppal ak ki nga xam ne mooy Nicolas Jackson ca kaw ci palaasu Habib Diallo lii la ñuy gën a séntu bu ñu ci loolu nag danañu wax ci leneen waaye balaa ñuy génn kaan boobu ki nga xam ne mooy Mohamed Salah agent am génn na daal di wax ci li nga xam ne mooy gaañu-gaañu bi mu daal am li mu jàpp mooy Mohamed Salah blessure bi mu am tax na fi mu dina toog lu mu gàtta gàtta 21 jours jàpp 28 jours kon nag li ñu doon wax ne Salah amaana dina mën a jouer ci quart de finale yi bu fekkente ne Égypte jàll na ca loolu nekk na loo xam ne fi mu ne dafay daal di wàcc voilà ndax kat ki nga xamante ne mooy agent am daal dinay xam woon gaañu-gaañu bi ndekete ëpp na ko ndax kat bi ñu mujjee def dafay wane ne rek moom Salah mu gàtta gàtta ñetti semaine jàpp japp ñent semaine la wara tok yo xamantene du ko football moy vingt un jours japp 28 jours Salah nak tay jii mu ngi woon foofule ca Côte d'Ivoire doon seetaan match bi nga xamantene ñom Égypte ñu ko doon football bu fa joggé voilà dafa wara dem ci Angleterre fofu lay fajo bu wéré nak fekk ñi nga xamantene ñoo di Égypte ñu ngi wéy di dess ci li nga xamantene moy mooy bi kon su boobaa dina dellu ci way app bi mu app sori na xamna dina romb li nga xamantene moy quart de finale yi xajna ci boru demi finale wala finale bu fekkentene sax la wax mu ne bu fekkentene sax dina dellu ci wat ci li nga xamantene moy Coupe d'Afrique bi mom ki di Mohamed Salah gannaaw loolu nag euh, ñu gis ne li nga xamante ni moom la ñuy wax euh, European Super League muy Super League bi nga xamante ne juróon na fi coow lu bare bëri équipe yu bëri doon génn di ko contre jàngat nañ tey ji ci kayiti xibaar ne am na lu xew de ndax kat équipe yu bëri yoo xamante ne ñu ngi doon génn publiquement di def ay statement di wax ca kaw naan ñoom dañoo contre li nga xamante ne mooy Super League bi du ñu ci bokk dégg nga maam nee nañu am na ci ñoo xam ne ñu ngi ci suuf di signé voilà loolu xibaar la boo xam ne nee nañu tey jii ñii di as dal dinañ koy génnee nee nañu daal bëri na ci équipe yooyu nga xamante dañ doon wax ca kaw ne ñoom bokkuñu ci li nga xamante ni mooy super league bi dañ ko contour te baaxul voilà fi mu ne ni ñoom ñu ngi ram dànk di dugg ci suuf voilà di dem di signer maanaam di bokk te seen i mbokk sax yëguñu ko kon xañ na koppar ya ca nekk neexul du mboyu a wax ca kaw la ba noppi voilà ne ci suuf di def li ngay def ne nañu équipe yu bari jamono bi ñu ngi koy def mu aju ci wàllum super league boobule Erling Haaland def na retouram moom mi nga xam ne dafa amoon blessure temps yépp fubalul loolu sax xeñoon ko mu dem ci li nga xam ne mooy coupe du monde des clubs demoon na sax mais fubalul léegi nag ne nañu fi ne wér na wér na ba nga xam ne fi mu ne nii sax maanaam match war ko am moom dina ci mën a bokk moom kii mën nañu wax depuis décembre ba léegi fubalul ak équipe boobu di Man City information bu am solo pour ñii di citizens Douglas Costa mom japp nañu né dina signé ci club bi nga xamante mooy Fluminense mom mi nga xamné niki dembu doon nañu leen wax né jege na lool ngir dem fofu lay ci Turquie voilà way nak mbir ma dafa mujjé dégg nga maam tagatembe ne nañu dal bit ci goudi ci le deal ba dal di yaqku voilà mu dal di cieñ mayenam fimni dé dal ci Brésil lay dem ak équipe bobu nga xamné mom lañu la ñuy wax Fluminense foofu lay dem mujjé signé way du dem ci Samsung Sport bobu nga xamné ñu ngi ko doon wax ci Turquie kon mbir mi mujjé na soppeeku né nañu nak dina amal li nga xamné moy visite médicale am ci alxames bi wala loolu lañuy sentu su ko défé mu dal di signé ak club bobu lay ki nga xam ne mooy Diolopy mbir mi xibaar la boo xam ne dañu ko fàtte woon jàll démb jamono bi voilà club bi nga xam ni sotteegul ndax li tax mooy Almeria boobu nga xam ne ñoom ñoo doon joué démb seen diggante ak Real Madrid ñu wan nañ ci mbir moomule waaye Almeria nag jamono bi dafa bankalu di bañ bañ lu li nga xamante mooy koppar yooyu la te ñoom li ko jëndee woon sax bëriwul de ay 6 jàpp 7 millions d'euros yooyu la ko jëndee woon fi ne nii mën nañu wax ne ci ay weer képp la ko jël voilà ñu daal di double bi ngir daal di ko loolu di wane rek xarañte gi nga xam ne gone gi am na ko waaye nag ñoom Almeria nangooguñu ci jamono bii ngir daal di koy bàyyi mu dem foofu lay